lu dul sunna bon naa lu bon bulu ca jëm satubu dem ba bul dem ba bul naa sunna waaye sëtu bu Demba Bunna del xeet sunna lu dul sunna bon naa lu bon bu ca jëm gañi ni leen yal na buur yàlla dolli ngërëm waaw ci Abdul Aziz dolli waa tey may gañi ni leen yal na buur yàlla dolli ngërëm tey danay maw da jaangi di la biir nit ñi dina ko ko fël ci xëwala na jënd gulu tey ji ma wax ay ndaloo abu bu kan la dina xamaa ko yara maa ko xam gani sëriñ abudu day waare tey yeete tey abu defar ay way bu loolu moo di mbiram gani su dee يدي بقلتي يا قلوب تساقل تبيك سفخيب تكمل لسنا وينا تبس ما تمجب تغير خلي ما داق صخ أي خلق وكي تبارك يا أحسن الخالقين أدل الأرض بارك الله بارك نفر sufe kono sëriñ si dañoo doon wurus ma de damay waxal fi gis muy ngalam mi gëni sëriñ abudulaa ko tongoo te doo gis maram mi gëni du fab tànk boo kam du gar si sura kaw da koy def li boppam du bett mu dellu taxaw mu bon. loolu dafay jaamu sallam dina dolli la fa. ba am lu iñaanu lu feeñagul du koy am dina سبل نعمة جرك باك لم جني دكوي بيتين بتدكوي جاخي بتدكوي مرمى بتدلخ جرمى ثم فيكم آنان مؤمن زمان موفوق جامان خنا مصلا ثم فيكم آنان مؤمن زمان موفوق جامان خنا مصلا ثم فيكم آنان ni moo baax nga saamoo ne. Moulay Badiama ni moo koy xanaa mosulaam. mi gën sëriñ Abuduna yaa di bawkat bu mag bi xanaa doo nelaw saa su nit na xërëm. nii sa fi bu dem ba bu naa day xëy. tusul loolu dul sul la bon laa lu bon bu lu jëjëm. kenn tax nga juutal sa ñam ba tiye bal na su duutaa du am ren taaj la sëriñ Abudu Rabbal la gëj jaar ku la yaa la gëj jaar ku la lu boole yaa am xolam ni bawal ii di joor saa su jaay dalal sëriñ bu baw di di joor yaa yaloo ay ngërëm ii na ci sa tool baa ya del bay tawattu yi goroo tabul na ku dugg kon nga saagi bu sagal al fabul في زخمتك ويغلب كل دم دريب كل وقت ما خام طندوك صداك عويان تيجان دواتك مقام دواتك يا سدودك فم tiijaan du woote ak wilaaya wilaaya yoodu yoodu tiisalu ñoŋal su fekkoon da nga woote tey ak wilaaya kese du yoon wi gàttoo nga doy ni laaj la tasax yoon fa suku

manu doonu bindi ba dootulu gëlëm ñi waji sëriñ sa bu goroo ñi day waaja delloo bu delloo bu ñee ñoom la yàqu wasu darbe da mutum na yi gani su ke ni ya bole ba khatibe ya yi balitar da na bole can da gagare wani su wayi da fe bakiti yau kai khara da na wai wani wai muhammadin khara gani da jirgin jari wa da take waliye da tuna su jangulu arudaka bayanaka hikar سرد عبد بي التي في فؤادي لكي تخمر يا قوم يا قوم من جد سفر بدل بدل بدل بدل بدل أمجد سويكة منا ويبخل الجهاد بباتشات ويجاز خاتم خلق بجنس فجاج والخمن جيرم بويكة هدنا مال خمال ويبخل de dafa naat di may ko lu këram mu amul yaa ko am yaa ko am waykat yi way way dañuy tay bayee te sax kat la day way di way yal sa feetoo way nanu ba tay gis nanu ni way dabul xaaj bayee dana yal sa feetoo way nanu ba tay gis nanu ni ji baye danoo jaare safee tooy nanu ba taye gis nanu ni way damul xaali baye danoo jaare safee way nanu ba taye gis nanu ni way damul xaali baye danoo jaare loola xarit waan فرب العرش يا عجبا واي دفلين ني نون مانغال مام دباخ واي الحاج عبد الرئيس مالك تتربي خليفة يا لك رضوان فرب العرش يا عجبا الحاج عبد العزيز مالك ترتر بي خليفة كوي ود واجو باخ دولا موي من يسرع جمج الإسلام به منك وخليفة دقلا شيخ الحاج عبد الرئيس مالك قصب نباخ مالك كوي ودواج ماخ نلمي من فلا جم في الاسلام بمنك خليفة مام دباخ مالك nit waaju baax du la moy ma ne fu laa jëm ma ne fu laa jëm ci lislaam bi manqué woo xalifa عالم له عابد له بفارس من الإمام جفن الطبلة يا رملة وخيرت به خليفة فلق الإسلام بي يا نيخ يا صفنا رسول الله سب جاجف بخدمتي هي هي يا ورد أب خليفة حجاب رئيس مار أي شرك ندب teew fa kanamu yàlla ñu xam yaa di xalifa gàcce nga alaama daagul doom yaay safeetoo tuubaati waawan booloo dara nga diib xalifa gàcce nga alaama daagul doom yaay safeetoo الفاء شجب اسماني gàcce nga alaama daagul doom yaay safeetoo tuuba ci waawan booloo dar la nga dib xalifa ajab daay si maalik togg sab ay basab ay jeex goreel te fegel moo gën di dox di waxum jaaxum ba xëy jóge fa ma Abdu Aysi Maalik naani jaa a jëf si ndek ngir ak yaani mel dama denc lu ni nii du payam ku lii nga am mbaa mu xam lii nga xam di ba lii nga mën ndax du doon yóbbu waykat yi way way dañuy toy bay te fekk jàng la day way du yóbbu yey sa fa way na ne ba tey way